dégg naa leen jaajëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax di leen wax ni ñu ngi fii ci arène nationale ki ñu fi woo di Fallou Ndiaye Ndiaye production grand combat bi dox ci diggante Thiatou Yarakh ak Bulldozer combat spécial bi dox ci diggante xale bi nga xamante ni mooy Ada Fass ak Jokkel beneen combat bi nga xamante ni mooy buuñaa Sénégal yëpp di ko xaar muy Liss wala Laurent ak xale bii di Bou Siteu mu nekk combat yoo xamante ni combat yu neex la mbokk yi ñëpp dugg si nañ dañuy dugg ci biir walla lépp loo xam ne xew na fi ci ambiance ci culture ci cosaan ci aada ci lépp nga ànd ceeg aada bàyyi aada ba ay. lu mën a def ci yow. waa Jili maa lay ziar. kaay nii. lu mën a. lii motivation rek. bilaay. xanaa gars yi ñu ngi si biir dugaguñu. waaw porte bi moom amul daal mais xoolal gars yi ñu duggee li ma ko fekk ci mbooloo. jéggi na a fekk. la demee mais sant yàlla rek. sant yàlla di ñaan yàlla yàlla ma yàlla suturaal. mais man dam tey si ko soq doo. bi ma huitième combat. ñaata naa cinq victoire deux défaites. combat bi xam nga fi la mën a yóbbu ci xam nga a baax moo tax ma ko. xam naa ko bu baax. lu muy di fekk fi. maa ngi gën a pare waaw loolu maa ko maa ngi sant yàlla bu baax. lépp jàmm daa jàpp quoi dama tooy dama tooy. maa ngi sant maa ngi sant bu baax kay. dara méttiwul. non non dara méttiwul ma. non ay séeréer. gisoo ma. non bëri ku bëre rek. dama blessure dara méttiwul. non vraiment dëgg fa yàlla. je suis en bonne santé. dara lu may lay. lépp jàmm ay saa non loolu moom xaw waaw nga laaj ko ko. damaa bëgg ñaar ñu wér. ñu bare ñu am doole bëre. nga xam ne kuñ daan mu xam li muy yàlla bu ko dara métti mu ànd mu ànd ak bonne santé mu ñëw ñu def lu neex ma ak moom incha allah. mbooloo mi nga indi. du doon pression ci yow. comme comme nan. pression rek mbooloo mi nga déplacé mbooloo. non non man nag ñak ma fayal man bés dama ci concentré wu. bu su ma duggee ci géew gi xel supporter. boobaa damay xam ne li topp sama ginnaaw dafa bëri damay concentré wu. waaw. Ah. mais daal bis bi dina <laughs> kii de day jaaru. maa ngi leen di bëggee de sama gars naa ne mbër da jaaru. da damay jaaru. dafa sedd man damaa sedd. yàgg man waaw man damaa ragal sedd. waaw dama ragal sedd. loo sedd sedd boo duggee ci géew bi tàng jër. billaahi maay raw gaynde. maay raw gaynde damay tàng jër. xam nga gaynde su toogee lekkul su gisee benn bëy bu ko romb gis nga nu muy mel noonu maa koy raw nag. tey bis la la laaj. waaw bis dal la laal tekk ak teel rek sunu borom suturaal ma defal man ndam. man koy bëreel. Baba Jaxal laay bëreel. Baba Jaxal laay bëreel. Ah? loolu dina waaye loolu mënul garaaw ba garaaw combat yu fi bëree. aha mais sa morom bi. si am baax na na am ah daa ah, am la. dara li mbëri di laye dara méttiwu ma pour saagum. mbër. naka mu ngeen. yaa ngi am jàmm. sant bi laa ye. Franc waaw. waaw gis nga tey rek ndax boo xoolee li may indi si stade bi waaw maanaam dafa jéggi dayoo ci xale bu ndaw kon am na lu nekk sama ginnaaw kon war naa def tekk ba tekk woon ma yoon waaw bañ a def rambax bëggoon naa sax ñu dem ba ci gaay yi ma yëkkati loxo yi ñu jóg. ayca ñu dem ayca. yox la yox la jëli ko yox la yox la yox la. waa Jili maa ngi doon ziar. lépp jàmm lépp jàmm. ban heure ga di ba waaw waaw waaw quatorze heures et demi teel a ñëw rek fonk bis bi waaw fonk bis bi kase. saa yi tey bis bi lu mu laaj. bis bi sérieux la laaj bëre xeex jàpp daan. dara dara métti wu la. métti ñu doon bëri lañ. ñoom bëri léegi dañoo bëri lay koo ci laal mu ne daa am fu may métti dara métti wu la. man amul dara ma métti dama laaj ko moom ndax dara métti wu ko. moom de nee na dara métti wu ko yow yaa ko jaar. maa ngi nii sant yàlla. bool bi sifflé mu duma ko daan ko li ma waxoon juguma si wagee bi. confiance dafa bari. waaw noonu laa mel noonu laa mel ñu doon mbër lañ. de damaa gëm sama bopp damaa gëm sama bopp tey adversaire bu dul caaxi ju bu mag caaxi yàlla bu taxaw si nga ma daan ko. bi ngay Malika nan nga def. sant yàlla comme ni leen génnee waa Malika ñëpp génn ñëw taxaw ànd ak ñun gunge waaw sant yàlla loolu dañuy sant yàlla bu baax a a baax. Mera en tout cas géew moom yaa ko tuul. ngay bëre grand combat nga gis stade bi nu mu teel a mel. te ci biti mu ngi fees dell du doon pression ci yow. mënul doon pression ci man. béy na bii mooy sama quatrième grand combat kon grand combat mënul doon pression ci man ñu ngi sant yow daal ñu ngi ñaan yow yaa ko tuul. loo añee. ah loo añee. non doge ju bari. loo añee añee. ceebu jën. bu xonk ceebu jën bu xonk waaw. am na xooj. waaw. ndeysaan ndeysaan kaay. Franc lan la ah. ndam rek. ndam rek njaago bi moo ñëw tey. waaw. njaago yi ñoo ñëw tey. mun ngaa jóge ci njaago bi laal beneen njaago. ah. mun ngaa jóge ci njaago yi laal beneen njaago. non njaago far quoi. ni bëre de amul ay ñoo far. non njaago yi ñoo far. da ngay dem jàmm gën bëre beneen njaago. Oh. waaw noonu la demee. adversaire xam naa xamul làmb rek. waaw. lan la gën a mën a. li mu gën a mën a moom lijjanti moo xam naa li mu gën a mën a mais lijjanti moo waaw mais l' essentiel daal si kàttanu yàlla naa ko daan. di nga xeex di nga bëri. maa mën maa doole maa dàq bëre. waaw noonu la demee. ay ca franc mbër. waaw jaaxal lañ jugee ak Morala. sama xarit bi laay xaar jàkkaarloo. waa jaaxal ak Morala ñoo ma yab tey. pour ma ñëw daan ci Bécaye tey incha allah. nga daan ci Bécaye Bécaye. non du yomb. Ah, góor góor yàlla warul bëgg lu yomb. gars yi nee na làmb la. te moom mooy favori bi ni ñu koy waxee parce que mu koy woy di loo si diggu géew bi. mu koy woy di loo. par force la mu koy woy di loo mu neex ko mu naqari ko da mu koy woy di loo. bëgg xeex a par force par force. de. ay balaa bi sol moom baax balaaw la. Bécaye dafa corona dañ koy vacciné. mooy état dañ ko bëgg a vacciné. corona dañ koy vacciné. di dox si diggante xale jël booy. te dina pikiru par force. par force mu ne ko mu ne. billaay booy nga ma ko jox. mënu ma jam ko Bécaye dama ko koy jam. si kàttanu yàlla nag. mu ne ko mu naqare ko. après ay jàngat Jaxal nuyu naa la. siyaar naa la. maa ngi am maa ngi am bu baax. bis bi tey lan la laaj. bis tey bëre daan ñebe. xeex wala bëre. non bëre wax. mun naa xeex mun naa bëre. adversaire bi nee na moom daa ragal seddaay. Ah. moom toog xaar la ba nga ñëw. yaay tàngal yaramam sauvage am yow la. dinaa ko lakk nag dinaa ko tàngal ba lakk ko. Ah. waaw. waxal ma ko a ne ko naa ko tàngal ba lakk. bi mooy sa ñaareel combat. bi mooy sama sixième combat. ñaata victoire. cinq victoire benn ay jëmbër. la laaj. non mënu ko ñëw wax léegi. Père du wax. mënu ko ñëw wax waaw man Ada añul. waa ñu la xiif. ah adversaire bi la waaw war boo ngàdd mu daanu. ah da koo a dóor mu daal. waaw. entraîné ngeen loolu. ñoo mag loolu. ah. mais ñëpp dañ ne ki muy moo ko mag ci làmb moo ko expérience ci làmb moo ko jiitu ci làmb tey bu ngeen doon yàpp xale bu mel ne Ada Fass nan ngeen koy yabee ba mu génn ci làmb. ñun mag lañu te ki muy bëreel ñoo ko mag te lu nekk def nañ ko ci làmb kooku waxul daanaan la rek mais bu dara desul lu may ci cappaandaw gi nga xam ne lépp dëgg la. yaay sama gaay doo lay doxul jàmm. wallaay père jaajëf. Ada Fass a ngi noonu. ndeysaan. temps yi la bàyyi. ngi lay seetaan da ngaa ñëw teggi ma tey waruma woon a wax si si wasaare ndax wasaare bu si teggi ma kay. ah gis naa la de gis naa la waaye bàyyi ji di ñëw woon tey waruma woon a wax fii parce que site bi man ma see def lu ne mu loon ma lu ne mais comme que bàyyi ji da beddi garaawul baal ma noppi. ngay def open press woo ma ah, gis keroog nga romb ma moo tax woowu ma la. xel mooy fàttali rek Tony yow sama xarit yow. billaay wallaay man waa. Ah. kii yonent yàlla Mohamed sama xarit. non lu leer ma mën a bëre. maa ngi ziar waa wasaare bu baax waa wasaare bu ma leen gisee rek si làmb sama xel day dal làmb yi ma jëw fi yëpp waa wasaare ñoo ma dëpp micro bi. tey bis bi du doon pression ci yow. non si làmb. bi nee na moo la mën de. waaw loolu moom wax na rajo wax ko télé wax ko ci site internet yi waxaat ko léegi ci stade. waaw loolu moom mën naa ni mënuñ cee wax lu bari parce que yàggatul fii ay waxtoog waxtoog lu topp incha allah ñu laale Jackson amul fenn foo xam mën na kaa jaar tool yi ci carton suñu borom bu ñu yàlla mayee fekk ak wér comme ni ñu am moom moo am forme la si mënuma daal. ana waa kër mbir. ñëpp a ñëw Baye Jili Baye Jili xool stade bi tey ni ma ko def bee yëpp a jeex tàkk Baye Jili. waaw waaru li ma bàyyi ci bari. Baye Jili bee jeex tàkk. billaay wallaay wa taala booy di ma oowaat di wax promoteur ay billets mais nag dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax sant yàlla mais ay Jackson ñi aw yoon la rek. mais am nga jàppale waaw xaw na ñoom maa ngi jàppale tuuti nag mais ñu ngi sant diaspora bi autorité yi côté boobu ñu ngi sant ñu ngi sant ba di sant maire Notto Gouye Diama Maguette Mbaye taxaw na si jàpp na si di nuyu diaspora bi Ama Ndiassé jàpp na si waa itaal yëpp ñu ngi leen siyaar Samba Faye ñu ngi koy siyaare bu baax tey xaalis bari la écriture jox ñu ko Samba Faye ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di nuyu waa kër bi di leen wax nañ ñu xaar incha allah bonne chance. ay ja gay na. Laurent bis bi tey lu mu laaj bis. sëñ Fallou rek. sëñ Fallou rek. Adama Kaye. deuxième combat de la soirée. Alma Dieye Kalbara arbitre bi sifflé na. Kalbara Alma Dieye. Kalbara Alma Dieye. mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu di leewaatoo Karbala ngeen jàkkaarloo waaye Armé moo la woon ginnaaw ndeysaan waa Bou Siteu mi ni na mbooloo Bou Siteu mi mi ko topp bëri na Karbala Armé Dieye ndeysaan ñaare ngi noonu Karbala Armé Dieye Armé Arma Karbala ñaari xale yaa ngi noonu di lewato deuxième combat de la soirée ndeysaan ñu ngi fii ci arène nationale Ndiaye production la ndeysaan njiital ga di Fallou Ndiaye grand combat bi dox ci diggante Bulldozer ak Caatu Yaraax ma ne ko loolu doy na mu ne ma déedéet ma ne ko des mu ne ma Ada Jokkel ma ne déedéet Fallou xanaa jeex na mu ne ma déedéet combat bi ñëpp doon xaar dox ci diggante Laurent Ndiago Bou Siteu Karbala ndaysaan jokkaas na léegi ndaysaan ñu ngi noonu Armé Dieye Karbala Armé Dieye daa bëgg a jeexal combat bi Armé dóor na ma ngay dóor Armé ngay dóor Armé ngay dóor Karbala fay na ña xeex Armé nga dox ci koom mooy tul jël na ko Karbala jël na ko daan na ko daan na Armé Jéy Karbala daan ba ci kaw dóor ci suuf oh! joow ma joow Jokal nuyu naa la. foofu naa la ko maam Diop naas. tey bis bi. ñëpp xam nañ ne ndaanaan nga mu ngi dugg demal ñoo maa lay xaar fii Jokal. Ndeysaan ma nga noonu. Jokal ngi noonu di dugg. fay na ma nuyoo dugg ci biir moment bi Jokal di dugg la Ada di dugg. ñoom ñaar dañuy daje ci digg géew bi. Ndeysaan ñoom ñaar dañuy daje ci digg géew bi. Jokal nga koy xool Ada Fass nga koy xool. ñoom ñaar ñëpp a ngi ci digg géew doomu Moussa Gningue la kii tey Moussa Gningue ku ne xam na li mu def ci Fass waaye tey moom moo indi Jokkel mu war a bëreeg làmb war a bëreeg xale bi nga xamante ne mooy Adama kilifa gi nuyu naa. maa ngi lay siyaar ba tur bi waaw. tey Jokkel di bëreeg Ada Fass. waaw ngeen ànd ak moom indi ko. te yow ku ne xam na ni sa papa li mu liggéey ci Fass dafa mel ne làmb léegi daa tuxu de fépp la. non làmb taxul. Jokkel sama doomu nday la. sama xarit la. yaaga naa ko ngeem muy ñëw di bëree di daan waaw di ñaan yàlla suñu borom defal ñu ndam bu sedd guy incha allahu rabbi ci xeex rek lu aada indi rek fekk ko fi bu ko xeebee xeeb na musibaam ah. waaw <laughs> wax am na solo mbëray bëre waaw waaw non non sama mbër la géejawaay ah. kii borom bi waaw ah. eh jëm. waaw billaahi sama mbër sama rakk. mu jël lépp teg ko sama loxo. jox ma respect jox ma cër déggal ah. moo tax may def lii. waaw man moom ku ma ku ma ku ma ku ma jox sama cër rek ma delloo loxo xam nga ma man sama nit ku may mere sama nit nga may kenn mënul ne Ketchup en personne rek. nga jékki-jékki mere ko wala eenal ko wala am loo ko xam nga chaque jour rek ku may wala nga mere ma rek ni ma mel ci sama nit moo tax nga mere ma neexu neexuma lu tax mu neexuma nga ne daa bëgg diw daa bëgg diw wala diw lay défendre kese rek dongu te loolu maa ngi ciy fier yàlla mi ngi may dimbali ci loolu ba nga xam ni musuñ ne daa bëgg diw ba pare ñëwaat di def leneen jamais man ku ma jox cër ma delloo la ko xeebu ma kenn nga buusi te xale bu ndaw la te daf ma jaral ma bàyyi lépp ñëw taxaw ndax bi muy jël avance man maa jël xaalis bi maa jël xaalis bi tas ko ci ay njabootam mu toog yorul dara te daf ma nangul ma jox ko yaayam ak papaam ak ay jabaram ak doomam ñu séddoo xaalis bi mu pare àndaat ak man liggéey ñu do ñoo jóg see jàpp liñ ci war a jàppee ñuy gërëm grand moo Ndiaye bu baax États-Unis dimbali na ma ci 4 bloc yëkkati na 400000 jox ma ma boole koog li ma yor jëndal bu Siteu ay bloc moo tax tey bu mën a feetal fii Laurent tamit may nañ ko ay bloc jox nañ ko ko li ñu war def nañ ko ñoom ñaar ñëpp suñuy rakk lañ mais ñun nag deretu géejawaay mooy daw suñu yaram Bou Siteu lañ bëgg mu daan incha allahu rabbi waaw. suma xarit suma doomu ndey Boucher moo xewle nekk suma lépp loolu moo tax ma def déplacement maa ngi waroon dem Touba sax temps yii nga maa gis ci média bi mais dafa am ci li ma nekk mais yow man ak yow amuñu boo ñoo far tey nag nekk na komba bu neex mais li may conseillé Ada Fass mooy na tey tey ci combat bi na respecté Jokal. su ko bëggee daan ndax Jokal gis naa ni combat bi am na ci jàppale na tey loolu laa koy conseillé tey. Ah, waa gis naa jok euh, Jokal gis naa ay ponkal waa Fatick jàppale ko na tey tey mais diggante bu Siteu ak Laurent nekk na combat bu tey mais bu Siteu mbër bu mu jël ci sa dalay agressé mais tey am na combat. bu Siteu am na combat mais combat bi Sénégal yëpp di xaar mooy diggante rëg-rëg. ak ki nga xam ni moom mooy saakees moom moo ñor saakees ak rëg-rëg dañoo war a siggi dañoo war a sëgg bëre parce que nag lamb la quoi lamb la mais Ama ak Modou combat xalam na bay neex buum ko dog ay doomu fàllaay bi sifflé Adama arbitre bi ngi waaj a sifflé arbitre bi sifflé na ndaysaan Papa Cité ak Ndeysaan ak Papa Siteu Franc moo la woon ginnaaw Papa Siteu moo la féetee càmmoñ moo takk takkaay yu bari nduroog Siteu rek ba ci bëre bi sax Siteu lay indi Papa Siteu Franc Mbeur Papa mu ngi nekk écurie Boy Sey Franc mu ngi nekk écurie Grand Médine ñoom ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu deme nañu wet Franc dagg na lewaatoo bi ndeysaan ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ci làmb Papa Siteu Franc mbër Papa Siteu Franc mbër Papa Siteu Franc mbër ñoom ñaar jàppante nañ relance sol na Franc sol na mu ngi koy takk takk bi baax na Papa Siteu Franc takk na ko ma ngay demee wet Papa Siteu bañ na Franc mbër fi mu jàpp baax na Papa Siteu day bañ wala déet Franc mbër fi mu jàpp baax na Papa maytul tegal siège bi mu ngi yoot Franc moytul mbat bi mu ngi koy tegal siège daan na ko daan na ko daan na daan na Papa Siteu Franc mbër daan na Papa Siteu Franc mbër daan na Papa Siteu xoolal mbooloo mi muy. xale Adama ni nga bëree ni nga bëree ni nga bëree. du mag ñi du mag ñi. lu tax man ëpp doole. dama jox samay morom. ni nga bëree Papa Siteu daf maa jaaxal. ëpp doole. da ko takk di ko forcer di ko forcer ba naan. maa ko ëpp doole. dama jox samay morom. ñan ñooy sa morom. caatu raba Siteu bu ngor ku daan. caatu raba Siteu bu ngor ku daan. ndeysaan tey lan la bis bi laaj lu mu laaj dal ak jom ak fulla fayda dal bi dama ko gis ci yow ba pare non waaw loolu la ñuy continuer incha allah mais bu ñu dugg euh, gis moom beneen beneen beneen façon incha allah mooy sa ñaata combat ah, ah huitième combat huitième ah. ma defet ki ngay bëreel xam nga ko xam naa ko bu baax kan ngay bëreel na dañ ko fee bàyyi nga jël waaw ñun moom ay mbër lañ dañoo a carrière bu nekk fi naan dañuy taamu kii rek jartul ñuy bëre quoi mën nañu bàyyi kon. yow gisoon ni tool yi da laa xeeb. waaw daf maa xeeb kay mais goor daal balaa nga koy yeb war ko ba pare incha allah. mais dara la dara. dara sant yàlla. mbëri kat léegi koo wax mu ne daa am lu may métti. dara dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax. dara méttiwul maa ngi wér. tool yi nag tool yi nag. maa ndax lii moo ñu boole du ñu ay noonu quoi ma koy ñaanal jàmm xam nga làmb foog ree la kese na ñëw ma dànk mu ñibbi si jàmm salaam yéenu ma ko dara lu bon. jaajëf de waaw waaw. ndeysaan na solo. fay naa la. bi mooy sa ñaari combat. bi mooy sama quatrième victoire. trois victoire. premier combat laa ñàkk. sa premier combat. dafa assuré. dafa assuré man noonu laay bëree ne gars yi balaa ñu may xam naa la jeexal. dina leen jeexal. naa maa ngi dàq dafa nekk si man. dama leen gën a xam fi ñu taxaw ci géew loolay problème bi. saa yi foo jëm. ndaanaan foofu laay tegit sama ndënd. Hmm. foofu. ku daan ku daan laa wax. ku daanu na soxlawuma la. ay baay jiini yaa fi ngi noonu. ndaysaan moo war a bëreeg Ada Fass. gis nga ko ma nga taxaw. di sotteeku. ki koy sotti doomu Moussa Gningue la. Jokal ñëpp xam nañ ne bis mënu laa dépassé mais bis bi tey nu mu lay def. ah jàmm ak salaam rek wax nga ko léegi kay. waaw mënu maa dépassé. waaw ñu ngi laamu de. Ah. ñu ngi ci biir naas. ñëpp dañ ne da ngay bëre xale. xale bu nga xamante ni dafa am doole mën a. war na yàlla Arafas ma ma ko deux ans. ah Jokal waaw aja bër. cey Jokal cey Jokal. dem. looy xalaat booy dem. dara ndam rek. yaakaar naa ne suuf li ma def li ma def dem incha allah. voilà incha allah xeex wala bëre. dama xeex damay ngi noonu. waroon noir. so doomu ndey buy bëre ji. combat boo xam ne combat capital la nga war ko cee yab lan nga koy wax yaa koy xool rek. dama dama koy yërëm quoi parce que dama gis li mu daj. te bu dee coono rek mooy fay sunu borom da koy defal ndam parce que li may teg sama bopp lu ko raw laa koy teg. parce que ji mun naa ne la lamb. média la mais Bou Siteu ku def neuf combat ak ku def benn combat yamuñu niveau Bou Siteu ko performe Bou ko gën a miin géew Bou Siteu ko victoire dama bëgg gars yi bàyyi loolu xel te bu demee ci géew bi bu dina ko corriger la tarkindaa la waaye bu kat xale bu ah, paa la kii di mag nga naan ma bu paa la la pour déstabiliser sa rek mais la moom loonaa gën a xam ne Bou Siteu mënu koo mag léegi yow buñ dindi woon faral dindi lépp ak ni nga mel ci làmb boo doon yab buu nan nga koy yabee ak nan la war a bëree ba génn ci combat li may indi làmb laa ko laa laaxoo laa ko laa ko sëf respecter sa adversaire sës ko vigilant ci li muy indi bul lu bul ko may dara te lu mu la may nga jël gis nga ni may bëree doyal ni guy gi ñëpp di la coow dama lay sës loo teg ma teg yi loo wàqi ma suul lamb mbër bi la ëpp mille chance pour bëre moo la ëpp chance pour daan la parce que bëre sa kaw yàq rek ngay mën moo tax ma ne ko ci kawam. man bëre. bu bu teel ngaa simeeku de. waaw dama pare moo tax. parce que ay pare naa nice. moom mu dugg see simeeku. waaw ñëw na de. waaw ñëw na gis naa ko. mais moom ba léegi simeekoowul parewul. parewul xam naa day bañ gars reetaan ko quoi dama yaakaar ne liggéeyul parewul quoi. waaw ah, man moom pare naa. ak mbooloo mi nga déplacé indi leen. du doon pression ci yow. du pression da parce que man bii mooy sama dixième combat. miin naa bis. kii ba arbitre bi du épée bu bu ma bu ma mënee rey sax na ma ñëw woowee sa xeex la moom dama koy gaañ. su ma woowee sa xeex laa wax benn coqaata bu ma ko woowee sa dama koy barke alxuraanu karim na ñëw ma daan ko ndànk ñibbi man tey ay xeex indiwu ma fii. mais dara méttiwu la dara woowee sa xeex nga gis lu garaaw. dara méttiwu la. dara méttiwu ma. lépp dañoo tàmbale kuy bëre ne am naa blessure. amoo benn blessure. amoo benn yooyu affaire tapet la wala ñu daan la taxaw naa dama blessé loolu affaire du la fi loolu du yëfu jàmbaar war nga ruus sax say mbooloo yi la topp man nekkuma ci yooyu waaw man aw man moo man joobee ma noonu. ñaata bolok na ma 5 bolok waaw ku ci mel ne Matar suba teel jëndal ma benn bolok. waaw ay nduuraa Balde ay bébé Baas ñoo ñëpp ñëwaguñ affaire yëpp mooy loolu. am naa jàppale baal ma ma daan ba pare su daanee moo Ndiaye directeur daa am ma dencal nee ma baal ma daan rek kan ngay waxal kan ngay waxal. ah ngay waxal sama si kaw. loolu di wax. waaw daa am lu mu fàtte moom laa leen doon wax. tey ngay mu war a combat boo xamante ne combat bu am solo la ci carrière nan ngeen ko yëg. waaw préparé nan ko doon préparé te moom daanaan la wóolu naa ko sama xel del na moom di ko ñaanal yàlla may ko ndam lu sooy dugg ci barke alxuraan. te am nan njort dañuy am ndam yi. xeex lu mu laaj rek. set moom xale la moytuloo wuñu ko dara daanaan la. wallaahi moom buy bëre sax du ma ko conseillé dama nakaan ah, yow loo def baax na ndax ndaanaan la sa combat bu mujj da ngaa ñàkk fii lan nga jàpp ni moom nga def ba ñàkk ko waaw combat bi li ma ñàkkuloo nag mooy damaa xeex xeex mu jaarul yoon maam te ki ma doon bëreel ndaanaan la loo ko may lu ne mën na laa daan mais xëy na tamit ñun ay xale lan yaa yàqul dara sunu yoon dañuy defarwaat pour en cas ëllëg bu ñëwaatee bañ a gaaw a juumaat mais ni nga nekkee ndaanaan ci làmb di euh, booy Dakar wàcce ba wàcc ci suuf lan moo tax mënoo woon wàcc ba tolloog waaw booy Dakar bi mu wàccee nag dama wàcc dama dama ko doon jéem a toos a léegi nag bi ma toosee dama koo dóor coup bu dal hypercule bu dal nag ma daaxu ko yéem wax mu def frein si la daw diggu ma mais nag ñu ngi koy ñaanal ndam lu jugnu mais lamb ji mu ngi fi ñu ngi fi incha allah sanu combat yi di ñëw fan nga fan nga jëm maa ngi si lamb instant yi tool lu gën a métti gën a sadik na ñëw wallaahi lazim ah. waaw ndax instant yii toll nii li ma jógee maanaam booy Dakar jël bi ma daan damaa bëriwul xeexu ma te man loolu mooy li ma métti. kenn xàmmeewul caatu ngeewal. wallaahi azim dama am na benn journaliste bu ma woo ma ne ko su ma óoreen ni booy Dakar nii la may daane wallaahi su ma mënee xaru bu nee suba la combat bi ma xaru. barki Muhammad damaa métti ba léegi mais nag yàlla baax na lamb mu ngi sunu kanam incha maa ko tent sama bopp kan moo la tent. soo mel longo moo ma tent waaw. xanaa lu gu bees la. waaw lu gu bees la waaw xam nga dañ maa yónni yaa xam te ma taxawaalu waruma. yoon bi xaw a am benn escale benn temps d'arrêt te loolu du yoon. moo tax ñu indiwaat bu bees tax. te bu ñëwaatee fii nga xam ne général ñëw. tardé lan nga jàpp ni moo la ko yóbbee. tardé ma ko yóbbee mooy xam nga damaa jëloon loo xamante ne dafa bëri doole ci man dafa am loo xam ne benn nit attanu ko ma bëre ba tollu fenn fi ñu jox ma combat boo xam ne mu diire deux ans boole koog ñu jël ma convoqué ma tournoi CBAO occupé ma. xam nga loolu neexul ci xool du lépp la ñuy wax mais xam nga dañ maa dañ maa convoqué tournoi CBAO occupé ma tombé ñu jàppat sama combat ma war koo préparé préparé wu ma dara mu doon lu ma naqari nag. mais nag sant yàlla xëy na lu mu a ñàkk. ban adversaire nga jàpp ni war ngaa mën a bëreeg moom te yéen ñaar làmb ju neex la. waaw maa ngi ci maa ngi ci booy ci kaw kuñ ma jox ma jël. waxal diw ndax yow xam nga. sa yow koo ma yéene yow. man maa fi ëpp adversaire. ku ñëw ba barki yeneen bi position boobu laa taxawee xoolal ma ci booy fi gën a soxor ndax maa ngi entraîné chaque jour matin soir sama waa écurie rek laa fi bàyyi ak ñi may àndal boo yëpp laay bëreel ñu ci bari dañ naan mbëru simple yi dañuy am difficulté adversaire da ngay nangu loolu. waaw gars yi moom xam nga làmb ji léegi daa bëri moytonte boo xoolee looloo xaw tax làmb ji xaw a tardé mais làmb ji waroon naa dépassé fii ndax mbër mu ndaw bu fekkee mbër moo xamante ne mbër mu ndaw nga da ngay toog di calculer sa carrière da ngay reeba tas te boo bëggee jàpp benn saison bu ne nga bëre benn combat balaa ngaa egg ci vingt combat vingt ans de carrière tamit day yéeme na gars yi ñëw ñu bëre mbër mu nu ci nekk loolu nag li koy waral mooy li koy maye mooy mbër yi nangoo bëre seen biir man pare naa pour mbër yëpp instant yi rek laa bëgg. ñu ngi man bu baax a baax. kon balaa saison bee jeex. di balaa bee jeex waaw. instant yi lamb laa namm barke naa Mohamed. déggoo ma ñu ngi Pikine ñu ngi Guédiawaye ñu ngi Parcelles ñu ngi bépp instant fii nii. ay ca général. bi sifflé na. Seck Ndanane armée 2. armée 2 moo la féete càmmoñ Seck Ndanane moo la ndaanaan la Armé 2 Seck ndaanaan mooy dóor Armé 2 ngi dóor ci suuf plaqué na ko Seck bañ na Armé 2 ngay dóor Seck ngi yóotu ngemb Armé 2 Seck ndaanaan Seck ngi dóor Armé 2 ngi dóor Armé 2 Seck ndaanaan Adama 2 Seck ndaanaan Seck fi mu jàpp ci loxo ndijoor bi baax na Adama téye ci loxo bi ñoom ñaar fu ñuy mujj Seck ndaanaan Adama 2 Adama 2 Seck ndaanaan Adama 2 Seck ndaanaan Armé 2 Seck Ndanane Armé 2 Seck Ndanane Armé 2 Seck Ndanane jàppante nañ ba tey mbokk yi suñu jugee ci combat bi dañuy jëm ci combat bu neex diggante Bou Siteu Laurent Ndiago waaw waaw da ngay xeex ñoom ñaar ndaysaan drapeau xam-xamu lamb dugg si nañ ndaysaan ñuy rendre hommage Moussa Balla gay ndaysaan lii rafet na ndaysaan Abdou ngi noonu mu xarañ loo maa ngi leen di béggee sama gaay yi gis naa ci mbëri sama a yaa ngi noonu ndaysaan xale yaa ngi noonu ndaysaan jaaraama cey lam Armé 2 Seck Ndanane Armé 2 Seck Ndanane Armé ngi noonu maa ngi lay combat bi nag ah waay déet waay combat bi mu ngi bëgg a yàgg waay bi mu ngi bëgg a yàgg arbitre bi àtt toog toog eey waay combat bi yàgg na waay Armé Seck ndaanaan temps bi jeex na ah wala déet dañuy joxe ndam mi-temps am na Armé daan na arbitre bi jox na Armé ndam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 lii de lu rafet la. moom mooy Petit Sack maa ngi di toog. rendre hommage rek. lii lan nga ci wax lii. gay naa ko Moussa Balla Gaye xam nañ leen ci làmb. gay naa ko ki nga xam lamb la bokk te nga war a rendre hommage ndax ñii ndeysaan nañ leen di fekk si bu soobee yàlla nañ leen ñaanal rek. barki sëñ Bamba yàlla yërëm leen te xaaree leen aljana leen di rendre hommage di wane ni yéen benn ngeen waaye fàtte woo leen benn yoon billaay initiative bi jëmm ji ko jël Abdou Tall moom moo jël initiative yi moo ne nañ rendre hommage Gaynaago ñu boole si Moussa Balla Gaye parce que ñoom am nañ cër ci làmb te ñun xeexoo làmb ñu ne kii dañoo bokkoon ndey ak baay muy Gaynaago guddeel nañu bëccëgal nañu bëri nañu soog ñun waa xeexoo làmb combat war na yàlla ñoo ngi koy ñaanal rek yàlla yërëm leen te xaaree leen ci barke Sëñ Saliou Mbacké. waaw ni euh, lañ ko tuddee ma ànd ak ñoom vraiment muy groupe boo xam ne groupe bu neex la gars yi teg ma sama place tamit ma ciy sant Abdou Tall bu baax a baax. nga gisee xew-xewu làmb noo leen gisee. waaw xew-xewu làmb moom presque man ñoo ma tette ci làmb quoi ñoom ñoo ma dugal ci làmb mun naa wax loolu. lu leer bilaay <laughs> aja baa ji Abdou Tall doo wax. <laughs> mel ne asu pikk la de wala déet. lay sax dégg nga gën a lan. gaana gi gaana gi. gaana gi. nga ne xamoo dara ci kan. nga naan gaana gi. ndeysaan. lii lu mu doon. Eh, Laurent pare na. premier temps bi jeex na. ndeysaan ñuy delluwaat ci deuxième temps bi xool ñoom ñaari xale yi fu ñuy mujj Bou Siteu moo la féetee càmmoñ Laurent Ndiago moo la féetee ndijoor kii jugee jàmm ak kii jugee ñoom ñaar xale yi ku ci nekk wax na ci combat bi waaye la wax ñoom ñu xaaraat lañu tànk bi jël na tànk bi Bou rëcc na Bou rëcc na Laurent jël na tànk bi Bou Siteu rëcc Bou Siteu Laurent Ndiago Laurent Ndiago Bou Siteu mu ngi dóor ci suuf dóor Laurent moytul Bou ngi dóor Laurent Ndiago Bou jàpp na Laurent rocc na loxo bi bëgg a dóor boo ngi dóor ci suuf boo ngi dóoraat Laurent ma ngay fayu Laurent ngay fayu Bou Siteu Bou Siteu Laurent bi fu muy mujj ci ñoom ñaari xale yi fayu na Laurent siggi na Laurent Bou Siteu Laurent Ndiago Laurent Bou Siteu stade bi ngi ne tekk rek supporters yi nee nañ tekk rek eh Laurent Ndiago Laurent Ndiago Bou eh combat bu metti waay jaxabal na ko daan na Laurent Ndiago def na ko moom bu préparé na lamb ji ànd ceg ay mbokkam préparé na lamb ji ànd ceeg ay xaritam daj ci coono waaye lamb ñaari ndamay dugg waaye benn ay génn ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ bu ni ko Laurent daanee tey noonu la mënoon daanee Laurent lamb nag moo demee nii saa su ne booy ñëw da ngay ànd ak say mbokk ànd ak say xarit ànd ak say andu jàmm ànd ak say njëgañaale ku nekk yéene la ndam tey bu Siteu jàppale bi mu am ci combat bi musu ko am ci jàppale Bou Siteu taxaw bi mu am ci làmb ji musu koo am ci taxaw waaye tey ko ñàkk na combat boo xamante ni ñàkk na ko ci jom ñàkk na ko ci fula ñàkk na ko ci fayda tey lan mais làmb ji dañu àtte dëgg nañ di àtte dëgg Bou mënul téye Laurent tuur ko ba mu jéng arbitre daw téye ko léegi téye bi lan la lu xew génnuñu saako yi ñu ngi si biir géew bi mu tuur ko ba mu jéng mu dem téye ko wala ko arbitre téye wala ko moo ma xew mais lamb ji foog ñu bàyyi yenn yi foog ñu foog ñu teg lamb bi si yoon buñ ko tegul si yoon lamb day yàqu barke alxuraanam karim lamb day yàqu ko jaay doole ci géew dañ ko jaay waaji ba mu jeeg nar a daan bi daw téye waaji mais pour lan loolu lamb am na loo xamante ne buñ ko bàyyee mu dem barki ma xamadu la min day yàqu lamb ji dafa nar a yàqu ji parce que lii man duñ ma ko def man lii bu ma ko defee sud du am barki alxuraan lii du yoon nan ngay dóoree mbër ba mu jéggi arbitre bi taw téye bi sifflé lan moo tax arbitre sifflé lu arbitre sifflé lan la arbitre sifflé ñun du ñu ay mbaru tiktok du ñu mbaru buzz ay champion lañ dañuy bëree nan ñu bàyyi ñu rayante si làmb ji looloo ñu fi indi buzz indi wuñu fi fii làmb ji dañ ñu ngi waa CNG lan la il est peur da bu li bu yàggee dañuy sonn dañoo sonn waaye nañu wax wax yi waaye li kenn xamul la solo nday oh, sama yaram daw na ñëpp a ngi jooy ndeysaan ñëpp a ngi jooy combat bi xale yi dañu ko bëggoon waaye làmb ngi nii lii moo gën lii mooy làmb defaruwaat leen ñëw musuma gis mbër muy bëre ma gis buuse mënul téye boppam côté bu ne dem nga fa tëdd nga jant nga def nga lépp sa mbër daan nañ ko lan nga yëg waaw sant yàlla rek ay xale lañ demuñu fenn di féliciter Laurent yàlla na ko ndam di jik Bou Siteu amaat beneen combat yàlla may ko ndam ndam laa ko yéene woon géejawaay bi mu dëkk man lu ma sonal rek deret moo tax ak mbokk waaw yàlla na ko yàlla may ndam yàlla yàlla na ko yàlla may ay ndam yu bari yi nekk ci kanamam yëpp Laurent tamit lam di jib combat bu mu ñàkk tey lan la mën a def ci carrière Bou Siteu non du ko def dara ñi ay xale la ah boobu mi a daanu def na neuf combat mi ngi soog a daanu li des ci kanamam mooy dàq incha allah mu ñëwaat bëre bu neexee yàlla. mais est-ce que bi Laurent amee trois jot jotul woon mu bëreeg stratégie ba mën a génn ci combat bi am ndam. mais xale la fukk bi muy demee moo tax ndam bu ñëwee ñëw na defet bu ñëwee ñëw na ndam moo ko fi indi woon tey comme que yàlla da koo xañ yàlla na ko yàlla may yeneen ndam loolu yëpp garaawul parce que day ñëw ak loolu rek moo ko indi tey ci làmb Laurent day génnaat géejawaay wala day duggaat géejawaay. non Laurent Laurent fi mu nekk nii amul adversaire géejawaay mais bu ñë bu ñëwee rek bu dugg moom xale yaa ngi fa di jàng bëre rek waaw. jaajëf jaajëf. Siteu ak Laurent Ndiago. non Bou Siteu de mais Bou Siteu Laurent Ndiago da koo xaw a sàcc tuuti doole mais Bou Siteu tey li mu war a def def na ko wax dëgg yàlla tey moom kontaan naa trop. parce que booy la day doog a ñëw si làmb lii moo koy yee bu ëllëgee mu ñëw. tey mobilisé na indi nit xeex na lii la yàlla dogal mais pour Siteu moom nga laa ko. est deful erreur bi Laurent amee trois avertissement. waaw daa waroon téye boppam est waruloon téye loxo. daa waroon téye boppam mais lamb ji lamb la amul téye sa bopp parce que yow li nga mën a calculer moom yow mi si biti moom mënu koo daa dem ba si am na fu lay àgg dee rek bi mu waree téye boppam booy bi da kaa téye la téye te rëccatul li li problème bi mooy bi mu téye ngemb dafa waroon di taxaw benn loxo loolu du yoon mais Siteu moom seetaan na sama xol. carrière Laurent fan nga koy gis ci làmb. non Laurent Ndiago na tey indiwul indiwul indiwul koof indi na volume indi mais indiwul koof bi làmb ji tàkkee moo waroon a jeexal combat bi mais daa sonn boobu la lévis boobu la Bou Siteu am koñ mooy bi mu ko dàq jee dafa am koñ mu génn saako yi bu ñëwaatee bu mu nangu mu laal ko na koy méb rek bu yàggee day génn deux avertissement bu amaatee deux da koy gañe. bu Laurent fi mu toll nii Bou Siteu fan la jëm ci la Bou daanu bi mu daanoo instant yi fan la ko mën a yóbbu. non Bou Siteu mën naa amaat combat parce que booy la ñaari combat la amagum kooku mënoo koy yóbbu fenn booy Liss Ndiago ak Fils de Langsane combat la. Liss mais Roland mi ak Fils sax combat la. waaw ah, parce que Liss moom dañ ko booy dañ ko acc ci waaw mais Roland mi ak booy Fils de Langsane combat la. Fils de Langsane day dugal lii lépp booy Roland day dugal loolu boo ko tëggee moo dàq mbër yu que dégg nga ma loolu ku ko dégg di nga si gis comme bii ma waxoon ni Bour Siteu ak Roland Ndiago man maa waxoon ni combat la mais tey Fils de Langsane ak booy bii boo ko tëggee doo ko réccu parce que booyu ndaw yi xoolal stade bi ni mu feesee moo gën nga tëgg mag yu mbër yu mag te du fees. am na solo maa lay bi. arbitre bi sifflé na combat boobu dox ci diggante ak Bécaye Bécaye moo la woon ginnaaw Sokh 2 moom nga jàkkaar lool moo ngemboo ngemboo ndeysaan Bécaye ay soq de waat jàkkaarloo waat soq de jokkaas kuy dalul ñoom ñaar ku ci nekk li nga takkoon ci gàllaaj tekki nga ko ndax gàllaaj yi dalay sonal gàllaaj yi dalay sonal ndeysaan soq de Bécaye ñu ngi xeex jëli na ko daan na ko wala déet daan na ko daan na Sokh toog bi daa gaaw daan na ko daan na wala déet bëriwaat bëriwaat ah sit amul ay eh, sit am na Sokh de Bécaye jëli na ko Sokh Bécaye jël na ko wóor na ko ndomba tegal na ko siège dañuy ñaari xale yi dañoo mën a bëre waaye dañoo mën a waaye Bécaye joxe na Sokh joxe na ñaari xale yi daal kenn mérité wul yóbbu ndam lamb ji daal match nul lañ ko war a def ku nekk yóbbu sa ndam sa kër macha waaye dana ko Sokh 2000 naanaan la daw na Bécaye jëlaat na yegg nañ suuf te action du am wala action bu amee si du am ndax ñoom ñaar dañoo mën a bëre ku ci nekk foo jàpp sa morom taxul mu bëre Bécaye mu ngi tànte Bécaye mu ngi tànte match nul match nul xale yi bagaar nañ kaax nañ match nul ñu lay ziar doom day sant bu baaxee maa sant si borom bi nga ñëwee ba léegi amagoo combat bëre yi gars yi ñooy daw nongoloo xam nga xale boo mënee bëre nga ko am tuuti doole gars yi lay bàyyi xel looloo quoi gars yi lay bàyyi xel sant bi. ñoo lay bàyyi samay morom rek. ñan ñooy xam nga leen yéen yéen yéen yéen a gën a xam làmb yéen toujours yéen a ngi làmb. dañ laa mos sa combat yaa ak Cheikh Super Diamane. waaw. mu toll. comme ça waatuma dara ba léegi. waxaatu ci yow la tagee wala ci moom. non si promoteur la si promoteur bi la. si promoteur bi si promoteur bi la waaw. mais du ci yow du ci Cheikh. du ci man de du ci man. pare nga pour bëre Cheikh. pare naa bëre ñëpp sama morom yëpp. bu dul Cheikh grand combat bi loolu. grand combat bi. gars yi ñu koy dee nag daan nangu Ada Fass mais Ada Fass ñeme ma du ma jël. ah. su ma jëlee ma corrigé ko. bilaa wala du ma moromam sax bokkul sax. Ada Fass du ma moromam. waaw borom bokkuñu. bu semi di bandi bandiwul nag. naa moroom suñu combat United States du ma moroomam. Boucher. du ma moroomam United States. doo moroomam Sénégal. doo bëreeg moom fee doo mun fee fee. mu taxawee ma bëreeg moom fii mu taxawee ma bëreeg moom. MMA bi MMA maa Boucher. dugal ci kaas dóor ba mu ko. Boucher ndaanaan la ko. Boucher ndaanaan la de. ma dóor ko baree ko. doo moroom Boucher sax bokkuñ sax. fii nag fii maa ko ko sañu ko ko. combat très grand combat. ayca ndeysaan dégg ko. arbitre sifflé na. Baba Diakhar Clémenceau ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu Baba Diakhal ma ngay arrière. Baba Diakhal Clémenceau ndeysaan Clémenceau dóor na daw na jëli Baba Diakhal Baba Diakhal na ko garde appui daanu na Baba Diakhal daan na Clémenceau Baba Jaxal daan na ko oh Clémenceau daanu na jël bu ko bett Clémenceau daanu na jël bu ko bett ndeysaan xoolal waa ji oh ndeysaan oh image bu rafet waay xoolal lii. Ndeysaan xoolal lii ndeysaan mbokk nday koy jur oh jàpp na Baba Jaxal ndeysaan jàpp na ko Baba Jaxal daan na Clémenceau jël bu rëy jàkkaar lool Jackson moo la ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ yoo xamante ne ay ndaanaan lañ Jackson dagg na lewaatoo ma ngay demee wet mook dañoo fas yéene laale ñoom ñaar dañoo fas yéene daje mbokk yi mu ngi noonu jiital tànk di jooram ma ngay dox Tony ki ngay bëreel daanaan la musul daanu ci làmb muy Jackson ndaysaan Tony Junior kenn waxaale wu ko ndaysaan sama xel dem na ca Mbuur làmb ba nga xamante ne Yaxya Jóob Yékini moo ko organisé mu daje woon na fa Ada Boy Baol bëre fa bëre bu rëy moom Tony naanaan la ci làmb Jackson 2 moom it champion la ndaysaan Tony Junior ak Jackson Jackson Tony Junior cokkaas na Tony cokkaas na cokkaas pour wut buntu la dara xewagul Tony Junior Jackson Tony Junior ak Jackson Jackson 2 Tony Junior Tony Junior Jackson Tony Junior Jackson Tony Junior ak Jackson Tony Junior ak Jackson 2 Tony cokaas na Jackson dañoo fas yéene laale Jackson dóor na Tony moytu coup bi ñoom ñaar fu muy mujj Tony Junior Jackson Jackson cokkaasaat na Jackson cokkaasaat na Jackson cokkaasaat na Tony fayu na Tony ngi dox ci kawam Jackson jëli na baax na daan na ko wala déet daanaku ko wër domba ko ndomba domba na ko nañ ko ndomba da ciy génn wala déet Tony boo ci génnee ma xam ne ndaanaan ndax naan bi doon laam laamee dëgg la laa ilaha illallah eh Tony génn na ci laa Tony génn na Jackson raté nga ak occasion bu rëy ci làmb ji action rëy nga rëcc Tony ndaanaan la daa mën a bëre eh lu mag doon ba dee bu ba ko dooni na moo mucc ci làmb ji ah Jackson waraf nee na saraax doom foo doom delloo fa sab loxo ba dee bu dekkee ba ko action bi la Jackson jël léegi sàcc la ah mu amaat ko de Jackson Tony Toné ngi dox ci koom Toné jëli na ko daan na ko wala de daan na ko Toné daan na Jackson Toné daan na Jackson Toné daan na Jackson Toné daan na Jackson Ndeysaan daan na ko oh Jackson daanu na jël bu ko bett na jël bu ko ci action bi nga bëree action bi. dañoo juum rek dañoo jox coup bu baaxul mu àgguñu fu sori mais teewul ñum ñun bi ñuy jàng bëre waaye ji dañoo takk suñuy bët dañoo takkal bët ñu takk moo tax foo soo àgg rek ñun mën nañ fa àgg bàyyi ji mënoo nga mënoo xam daanaa lu tóoni lu su la waree ndomba da doon moom ban erreur la def ba nga rëcc ci wër ndomba bi loo xam ne war ko woon def daaga bu doole moo tax maa ko bu doole fop mënu ma see takk bàyyi ji li xam mais yàlla moom tey maa ngi koy sant bu nga daan waaw noonu la lamb la lamb la tóor ku ko xamul moom dégg nga ko mais incha allah Ada Fass ku daan moom laa sol stade bi dama kaa duy ci jëm fees del ba jil 600 bi jaay barki Seydina Muhammad Rasul kon tamit waa gis nga mooy loolu ñu war waa commune bi ñu jàpp si ba jil tey mënu ma wax faa nga ñu def émission incha allah amul ragal jaajëf koy góol tàppe ñii ñoo jógee Colobane ndeysaan ñoo ñëw ànd ak di ko ndaysaan làmb gi ndaysaan xale yaa ngi noonu waaw waaw arbitre bi xool ñaari mbëri dox ci diggante Ada Fass Jokkel Ada Fass moom ngeen jàkkaar lool Jokkel moo leen wan ginnaaw ndaysaan ñii nee nañ l'expérience face à la jeunesse Ada Fass moo gën a nekk xale waaye Jokal nee na li mu ko magee bariwul dama koo njëkk a bëre waaye ci làmb Jokal moo mag Ada moo ko jiitu ci làmb journée yi Jokal bëre Ada Fass bëriwul loolu waaye Ada ndaanaan la boo xamante ne combat bi mujj ndam la fi am diggante ak dafa am bër arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 27 Ndiaye production journée bi dox ci diggante Ada Fass Tapha Mbeur déggal ma Ada Fass Jokkel il est vingt et une heures trente et un minutes ndaysaan Ada lool Jokkel moo la woon ginnaaw Ada Fass na day ñëw day ñëw Ada Fass yaa ngi bëri naan naan ci lamb Jokkel Ousseyn ñu ngi xeex ñoom ñaar baa jili nuyu naa la xale yaa ngi noonu diggante Ada Fass ak mais li ma la ci mën ba mën a wax loo ko ci daal mooy Ada na def ndànk ah lu tax muy def ndànk te xam na Jokal ndaanaan la Jokal bëri naa ku ne Jokal ji bàyyi ji lu du ma bu ndaw déedéet te ni ma gisee Jokal ñëwee tey Ada Fass na tey te xam ne combat du combat bu saasaaxe li examen la ci moom su daanee ki nga xamante ni mooy Jokal mën naa dem fu ne ci làmb te am na ku ñu ma waxoon ne bu daanee digganteem ak kooku combat la pour foofu nag faaw ci kaw mu nag na jox Jokal na respecté Jokal xool ni muy xeexee Jokal. Jokal Ada jël na ko daan na ko Ada daan na Jokal doole yemul Ada daan na ko mooy làmb baa ji li. daan na Jokal. Jokal day dóor fàtte tànkam Ada Fass waat loog moom doo paraake ko ba mu jaaxaan baa ji li. daan na Jokal jël bu rëy. ay ca wuro wa dem na këng wax mag dem dañ taali dàgg war na mbaam lu waay doon jaay léeg mu lamb Buldozer juge Malika yëmbal di caatu yaraax mu juge yaraax Dalifort ndaysaan mbokk yi xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi arbitre bi ngi wax ak ñoom ñaar li règlement bi nangu lii mi règlement bi bañ ndaysaan arbitre bi laaj na ay siisam laaj na Bulldozer laaj na Caatu Yaraax arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 27 février 2022 arène nationale journée Ndiaye production Fallou Ndiaye il est 21 heures 53 minutes Bulldozer Caatu Yaraax Caatu Yaraax moo la woon ginnaaw Bulldozer nga jàkkaar lool Bulldozer jiital tànk ndijoor Caatu Yaraax jiital tànk càmmoñ ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk wax nga sa morom waaye fi mu toll nii jëf moo ñëw sànni na Caatu Yaraax sànni na dóor mu daanu wala déet dóorante nañ Buldozer jàpp na Buldozer jàpp na mbot na daan na Buldozer wala déet lu xew lan moo xew hee Buldozer wala déet Buldozer wala déet génn bi day woote waat wala déet hee action bi rëy na action bi rëy na action bi rëy na Adama première action bi lan moo xew laay <laughs> laay lan laa caatu yaraax Bulldozer ah sit am na wala amul action bi kan moo ko créé kan moo tànte dañoo yeggandoo suuf wala daa am ku jiitu ah xale yi pare nañ de xale yi pare nañ de xale yi pare nañ de dañuy bëre waat arbitre arbitre dañuy bëre waat arbitre bi suuf la waat na mbokk yi Buldozer Caatu Yaraax Buldozer ngeen jàkkaarloo Caatu Yaraax moo la woon ginnaaw ah! am na ci sëriñ benn bu am lay de xaw ci kan la ci ñaari mbëri ah cokkaat na Caatu Yaraax cokkaas na Caatu Yaraax dal na par rapport ak bu njëkk bi Bulldozer a ngi koy déglu Bulldozer Caatu Yaraax Bulldozer door na Caatu Yaraax fayu na Bulldozer Caatu Yaraax ña ngay xeex Caatu Yaraax ni muy xeexee baax na Bulldozer jàpp na ko roggante na ko suuf Caatu Yaraax Bulldozer lu nar a xew ñu ngay bëre waa lii lan la Ousseyn lii lan la. baa ji ñaari xale yi dañoo ñeme yaantoo dañ maa bett. non cee ñàkk parce que xas-xas loo nekk seen diggante ñoom ñaar bu ñëwee faw ñu jëflante waaye kii Nebil Lazer naanaan la baa ji waxoon naa ko léegi am na ko ne ma combat bi dina gaaw ma ne ko mën naa bañ a gaaw ndax bi Lazer doo gis combat am bu gaaw caatu yoo xam tàmm na ci tàmm nañ ci moom. combat bu gaaw mais tey naataangoom la dajal moroomam la dajal moo tax faw ñu jëflante ñoom ñaar bàyyi. combat bi bu yàggee est-ce que du doon avantage Bulldozer. waaw mën na nekk avantage ndax yàgg naa bëre lu mel noonu Caatu Yarax nag tey dafa war a teey war naa teey ndax na nam daan bëree su ko andee résultat amul na teey xolaat bu baax a baax ki muy bëre nawleem la xale la boo xam ne dafa am fu mu teg bëtam xale la boo xamante ne nii bëgg na làmbati da koo gëm boo demee lu simple di ko fekk da ngay xam ne moom daanaan la. batax tax na ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi def épreuve de force Caatu Yaraax na ko. fàq na ko daan na ko daan na ko. Caatu Yaraax daan na Bulldozer. Caatu Yaraax daan na Bulldozer. wala déet. Caatu Yaraax daan na Bulldozer. bëre nañ. daan na ko. wala Caatu Yaraax daan na. lamb ngi nii ma ngay jooy. Oh,